ñun nag li ñu tax a point de presse mooy dañuy laaj ministre bi nga xam ne moo ko yore fan la suukar si nekk suukar amul réew mi mi ngi mel ne nekk dañoo nekk réewum guerre geer amu fi Mimra mooy defar suukar si fii su fekkee ne mënatu la joxe suukar si nañu ko wax commerçant yi inakwa yi ñoom expecté suukar si ñu ñëw mais réew moo xamante ne nii ponkalu réew mu toll ne Sénégal Macky Sall di seetaan tabaski ba léegi suukar amul ma ne loolu du tegu ko fenn suukar si dafa manqué manqué bu ndax tabaski ba léegi ñoo ngi toog gisuñu suukar te yokk nañu suukar si balaa nga am suukar da nga war wër borom jaay ndékkee amatuñu lu ñu jaay borom fonde yi jaayatuñu ndax amuñu suukar te li fi nekk mooy njaay jënd njaay jënd nag bu fi nekkee te gisuñu li tax ñuy liggéey day metti lol ñun nak ñoo wax suñu président Idi Thiam nañu dimbali wax ñu fu suukar si nekk waa marché bee sonu nañu tayi nañu te ñoo sacc duñu fen liggey rek lañu xam litre doow nga kay jënde 1200 paquet suukar nga kay jënde kilo 800 kilo ceeb nga kay jënde 450 metti na tay jabo lañu te suñu fen te liggey amatul ndax mbass ma ngi fi li waroon am lepp amatul kene mën ta dem kene mën ta dik kon nak dañu bëgg ngeen jog ngeen wax ci ñun li nak premier ki la rek mais dañu tassel département Guédiawaye yépp ñu wax laaj suukar si fan la lutax mu manqué te suukar la mais chef fi mu toll nii saako 12 600 mi ngi ci 13 600 ça saako parfumé bi 18 000 18 900 mi ngi ci 20 20 000 francs diwlin li 13 000 ak ak 18 000 léegi mi ngi ci 21 000 20 litres bi léegi vraiment ministre bi ñu yore wàllu commerce bi nanu wax réew mi fan la jëm nun jaaxle nan nanu jóg mu wax nu lan mooy tekkalaat tekk taalaanu ci lii layam layam ji dafa doy nun ay sénégalais lañ am nañ naqar trop